salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, man la Ousmane Dia. Mhm. di responsable politique euh, Wakhinane Nimzatt. Mhm. di conseil municipal commune Wakhinane Nimzatt. Mhm. aussi di conseil municipal ville de Guédiawaye. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. di rafet du aussi seen liggéey. di ñaan yàlla li ñuy commencé yàlla nañu yàlla may ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla may ñu yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin. amiin incha allah monsieur mm-hmm. Dia tey dañ la seet si woon mm-hmm. daanaka ñi ngi jëm ci nga xam ne moom di élection locale tey ñu ñëwoon rek bëggoon a am benn lecture boo ñuy defal ci li nga xam ne moom moo di quinquennat bi nga xam ne monsieur Racine Talla def na ko ci magistère mairie Wakhinane Nimzatt ñu bëggoon xam rek ban jàngat nga am ci durée boobu noonu mu def ci mairie bi macha allah loolu moom question boobu naa ci sawar tontu trop vraiment président monsieur Racine Talla la maire de commune de Wakhinane Nimzatt Euh, jox nañ ko un mandat boo xam ni dafa ànd ak tous les équipes Benno Bokk Yaakaar ba yàlla def aussi ñu fal ko mais bi ñu ko falee aussi jàpp nañ ne moom li mu jàpp ni moom la war a def def na ko ñoom mais ñun ci sunu gis-gis ak sunu xalaat ak li nga xamante ni aussi moom la askanu Guédiawaye gépp gis mooy que doxin bi mënoon na gën a gaaw euh, li ñu fi liggéey mënoon na gën a yaatu mënoon na gën a gaaw mënoon na gën a rafet Euh, beneen bi ci ëpp solo itam euh, askan bi dañuy soxla tout le temps di gis maire boo xam di am maire boo xam ni maanaam bu ñu lay soxlaa maanaam di la mën di gis loolu vraiment bokk na ci li nga xamante ni tey askanu Guédiawaye gépp ñu ngi taxaw pour bëgg a changer loolu nga xam ne dootuñu am maire boo xam ni euh, dañuy toog ay at maanaam pour bu buñ la soxlaa mën la gis dafay xaw a jafe tey jii nag askan wi Guédiawaye ñoo jóg pour am maire yoo xam ni dañuy waaxu di dugg seen i biir kër. d'accord ndax tey pare nga gën jëmal sa tànk ci digg géew boobu noonu nekk candidat. waaw loolu moom <laughs> jàpp naa ni ñëpp xam nañ ko puisque mhm. euh, li tax ñu xalaat lolu du ñun suñu bop mhm. mais dañu yàgg Guédiawaye def fi ay at yu bari te jàpp nañu lépp lu maire war def ci digganteem ak askanam ñun duñu ay maire mais ñu ngi def rôle boobu kon su fekkee ni ñun duñu ay maire ñu ngi def rôle boobu. nit ñi ñooy toogal seen bopp ba gis ni kat diw mi suñ ko jàppee teg ko ci place maire dina doon maire boo xamante ni euh, moom la nit ñi yàkkamti woon mu ñëw ci ci ci commune mhm. euh, yàggul dara gis nañ ci benn conseil bu amoon à la mairie de Wakhinane Nimzatt mhm. ki nga xam ne moom moo di le coordonnateur départemental di Alioune Sall dajale woon ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi nekk ci mouvance APR bi e yëpp mhm. ne leen na ngeen bootu ci ginnaaw Racine Talla tey bu gannaaw loolu aussi ki nga xam ne mooy président de la république dafaat beneen déclaration nañ leen ñi ñëpp nañ ko déglu hmm. tey ñu gis ni par ci par là am na ñuy jóg di fëgg seen dënn ngir bëgg a dugg ci géew gi lan moo waral loolu waaw li waral loolu mooy chaque fois li ñuy wax ni euh, politique responsable bu mag am na ci solo waaye bi ëpp solo mooy bi ci suuf te askan bi mooy responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci suuf bu kilifa yi daje ñoom duñu fay faral di teew kilifa yi seen bopp ñoom ñooy gisee ci seen biir ñoom ñooy waxtaan ci seen biir ñoom ñooy xalaat ci seen biir ñoom ñooy nas ci seen biir ñooy nocc ci seen biir waaye bu desul lu dul décision loolu askan bi ñoom ñoo koy rey euh, mu mel ni euh, nit ñi ñoo soxla ay maire ay maire yoo xam dañ leen di jege te comme ni nga waxee léegi monsieur le maire Aliou Sall di coordonnateur départemental def ko euh, daje bu ñu koy def en général ñoom maire yi wala ñoom directeurs yi ñoom ñoo koy def ci seen biir waaye décision bu mujj bi askan bi ñoom ñoo koy rey askan bi nag ñoo dem ba gis ni ñoom tey seen i mbir ñoom ñoo koy régler seen bopp mais du responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom dañuy xalaat dañuy xalaat yéegal ko fi nga xamante ni fa la war a yegg ñooñu itam nañu gën a bàyyi xel askan bi ci suuf di déglu seen i xalaat. d'accord askan wi dañoo dëkk si di woy di ñaxtu. Mhm. ndax yow ñaxtu yooyu yegg si na si yow. ana tey boo nekkoon maire tey lan lu bees nga mën a indil askan wi. bon macha allah loolu si question la boo xam ni dinañ ci yomba tontu. Mhm. puisque wax naa la. ne la ñun duñu ay maire duñu ay directeur amuñu doomu tànk mais boo defoon micro trottoir tey wër ci dëkk bi yëpp di nga gis ñun lépp loo xam maire waroon na def ci digganteem ak askanam ñun presque ay fanweeri at nangam ci loolu la ñu mas a nekk di ci dox guddi di ci dox bëccëg di ci dox suba di ci dox ngoon puisque askan bi tam amuñu lu seeni responsable ak seeni maire maanaam bu ñu xew ñu di gis bu ñu amee ñu di gis bu ñu amee it ay métit ñu gis aussi nga bañ leen xeebal seen i soxla askan bi loolu la ñu soxla yàlla nag dafa dogal aussi ñun laata ñuy def politique ci loolu la ñuy dox mbiru social ci la ñuy dox mbiru jàppale askan bi ci la ñuy dox ak mbiru lépp loo xam ne xew na ci biir commune bi nga xamante ni fa lañu dëkk ñun dañuy xool la moo ci sunu warugar ñu taxaw ci di ko def dëgg la taxaw si di ko waral indi fan yi passé gis na ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci euh, côté marché bu bees bi di yëngu ak mhm. coow xaw a waa naan ak waa Djiddah Thiaroye Kaw ci attribution bi nga xam ne moom moo am ci marché bu bees bi te jëlee ko ci loxo yi maire Cheikh Dieng indi ko ci loxo yi Racine Talla tey ban jàngat nga am ci découpage boobu ndax mbirum politique la ndax mbirum mën a jàngate loolu nag moom dëgg-dëgg warul woon am coow puisque ku ne xam ne euh, Géejawaay mhm. moo masa bu marché bu bees mhm. ndax euh, ñi nga xamante ni ñoo fi toxu si 1974 mhm. ku ne xam ne ne marché bi ñoo ko mos a indaale marché boobu itam ku ne jàpp ne ni Guédiawaye ñoo ko mos man déglu na ay émission yu monsieur le maire Cheikh Dieng def yu yag di ciow ci ay marché bi dama dañ ko foqar ci sama loxo dañ ko foqar ci sama loxo ma jàpp nak nag ci moy lo mas yor mais marché bi bu mu donné marché ba tey ville de Guédiawaye moo koy recouvrer bi acte 3 bi ñëwee ci la ko commune du Max Wakhinane Nimzatt doo ko yor mais comme aussi wax Wakhinane mm, ay nit ñu responsable ñofi nek ay nit ñu nangu aussi ay décision justice lañ moo tax bi justice dogalee ni euh, marché bees dafa war a féete ci jidda caaroy kaw jàpp jàpp naa ni euh, bëriwul coow aussi dafa justice euh, décidé ñëpp dañoo ànd nangu ko kon su fekkee ni dafa dem ba découpage aussi dugalaat ko ci biir commune Wakhinane Nimzatt kooku moom dama jàpp ni benn coow waru ci waru waru ci mën a am franchement ci découpage boobu la ñuy des ba tey rek gis na ni tamit li nga xam ne moom moo di littoral bi mhm. dem lu mat 150 hectares mhm. boo ko ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué yi ñu nekk agent de la mairie boobu def ay dëkkuwaay mhm. te wax dëgg yàlla ko xam littoral bi xam ban njariñ la waroon a mën a amal population bi te mhm. mu war a mën a nekk ay dëkkuwaay mhm. ok loolu itam euh, du du littoral bi rek loolu moom jàpp naa ni Sénégal gépp la euh, bëri na tey foo xam ni yaa nga fay dem di fa romb loo xam ni jàpp nga ni lii fi nekk am na leneen du fa war nekk lu gën lii ni mu nekkee puisque foo xam ne tey ñëpp dañ ko jël def ko ay dépôt tuurukaayu mbalit képp ku am sa xar yu dee wala say fas yu dee wala say nag yu dee fa ngay dem di ko sànni jàpp naa ni bu fekkente ni euh, état dem na ba gis ni war na ko déclasser def déclassement boobu jàpp naa ni euh, maire yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk war nañu seet lan moo gën ci waa askan bi li gën ci Guédiawaye aussi ñu taxawal ko foofu man jàpp naa ni aussi loolu euh, dafa gën ni mu nekkee nag waaw dafa gën ni mu nekkee. dëgg la xañ ne ni mu nekkee waaye mm-hmm. mënoon na. Mm-hmm. nekkee ci yeneen anam anam mm-hmm. yoo xam ne tey. dëkkuwaay bi dinañ ci gën a mën a gis seen bopp kon ñu koy jëlee ko def ay kër. waaw loolu itam euh, dinañ ci mën a wax puisque ak lu ñu ko mën di def man jàpp naa ne nañu def loo xam ne aussi askan bi nañ leen ci sóoraale. puisque askan bi itam euh, ginnaaw lu mën nekk ñoom dañ ci am wal kon lépp loo xamante ni war nañ ko faa sóor nañ fa sóor askan bi nga xamante ni aussi. Euh, maanaam euh, loolu jege na leen su ko defee ñoom it euh, ñu mën ci gis seen i bopp loolu daal moom moo nekkoon suñu xalaat ci mbir moomu. d'accord samedi bi ñu gis na la nga ci ki nga xam ne moom mooy côté wu Lat mhm. ñu bëggoon xam rek yan rapport nga am ak Lat Diop ak yeneen autorités yi nekk fii ci gox goxaat bi. bon li rapport bi ma am ak Lat rapport la boo xam ni mën naa ni mhm. Lat Diop moom moo ko taxawal boppam it moom moo ko defal boppam. ndax ñun ba ñuy bokk APR xamuñu woon Lat Diop xamuñu woon aussi Aliou Sall xamuñu woon Racine Talla puisque bokk nañ ci militant première heure yi nga xam ni ñun ñoo fi taxawal APR depuis dekkal ngor ba tey kon su fekkente ni ñun ñu ngi nekkoon ci loolu nekk di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba yàlla dogal tey président Macky Sall gañ réew mi moom mu jël commune bu nekk yàlla dogal ñu samp fa ay tête de ñu dem élection yàlla dimbali ñu gañ ñu jël maire yooyu teg leen fi jàpp nañu maire yoy tay sen première ligue mo nekkone di sam njabot gi di sam askan bi di xol kedd ku ci nek ci lan nga nek mais heureusement euh, lolu dafa xaw a manqué mhm. loolu xaw nak manqué mhm. euh, taxone na ku melni président Lat Diop mhm. ci élection présidentielle bi passé mom liggéeyam dafa gënoon concentré wu ci fep fo xamné responsable APR ma nga fa non seulement nañ ko séti mais nañ ko jàppale mais nañ ko dooleel renforcer ko ci liggéey bi mu doon def mu gën koo yokk moment boobu lat di ñëw si ñun fekkoon na sax ñun suñu décision moo doon doonoon toog aussi bañ a def politique puisque politique ku ne xam ne dafa metti boo nekkee politique nekk responsable euh, jote woo ci président jote woo fenn aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo la yaakaar ci yow lu lu xew ci ñoom ci yow la ñuy daw ñëw comme ci yow la ñuy daw ñëw nag te ñun itam la ñu amoon def nañ ko def def ba amatuñu lu ñu mën a jox kenn ci la président Lat joob ñëw vraiment seet suñu doon wax ni kat bëgg naa élection bii lépp lu nit doon jàppale Macky Sall benn nga jàppale ko fukk puisque élection bi bokk na ci élection bi gën a dangereux yàlla dogal nag ci la président Lat Diop ñëw euh, bi mu ñëwee ku ne gis na taxawaay bi nga xamante ni def na ko ci ñun commune Wakhinane Nimzatt ak commune yi bépp boo xam ne mu yoon ci biir Guédiawaye président Lat Diop joxe dafa 5 millions 500 joxe fa presque lu mat juróom benni oto yoo xam ne euh, vraiment ñu ngi nekk ci ci liggéey bi kon nag jàpp naa ne président Lat jóg taxawaay boobu mu def tey non seulement daf ko defal président Macky Sall ci Sénégal gépp ah puisque waxuma la Guédiawaye rek ndax moom nekkul sàmm boo xam ne béy bu réer wala bu ruur mu ni sama yónnewu ci moom duma ko seeti kon loolu bokk na ci li nga xamante ni tey moo ñu gën a dugalaat ci terrain politique bi courage boobu moom vraiment président la Diop moo ñu ko jox. d'accord bu ñu jàngatee say wax ci biir dafa mel ni yéen les militants de première heure. Mhm. dañ leen a fàtte. non loolu moom <laughs> loolu moom ñëpp xam nañ ko puisque nag man li nga xamante ni man ñoom laa xam. Mhm. ñu yàgg APR nekk fi di sonn muy ay góor ak ay jigéen mhm. tey ñi nga xam ñoom laa xamoon maanaam combat bu njëkk bi yëpp ñoom la woon tey amul benn responsable ci ñooñu ñoo xam ne tey actuellement tey ñu ngi daje wala ñu ngi gisee kenn ku nekk yaa ngi toog sa kër parce que non seulement yëguñu la mais lijjanti wuñ la faale wuñ la loolu mooy problème bi te boo xoolee ñun aussi bañ fi nekk depuis dekkal ngor ba amuñu woon mooy mais vraiment ay équipe yi suudee la woon muy ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw mais tey ñoo ñu nekkoon fi tey ak li ñu dajoon lépp tey wax dëgg neex yàlla ku ne xam ne tey dañ leen sànni dañ leen sànni loolu nag mu indil parti bi ay problème ñun ku mel ni ñun tey bu dul woon ak Lat Diop dootuñu xalaat def politique ci àdduna noonu noonu Lat Diop defee ko ñun nag tey looloo tax ñun ñu amaat force pour mën a duggaat ci yenn responsable yi nga xam ne ñoo meroon yëpp di leen récupérer waat di leen indiwaat ñooñu nag ñoo toog tey ba gis ni Lat Diop mii kat nekkul maire u Guédiawaye Lat Diop rek la te même bu dul ba mu ba mu toogee itam président fal ko jox ko benn doomu tànk taxul Lat Diop bàyyeeku mais mu ngi nemmeeku askan bi mu ngi leen di gis di leen jàppale loolu tey moo tax géejawaay gépp foo mën a taxaw boo xee Lat Diop ñëpp ne eskay puisque nag gis nañ ko ci permis yi nga xamante ni tey juróomi téeméeri permis def na ko pour jeunes yi mhm. aussi def na ci élèves yi lu war a mat cent personnes yoo xam ni kenn ku nekk li ngay jàngee ren ba déwén président Lat Diop moo la ko jox ci covid bi nga xamante ni vraiment ku ne gis na méttiwaayam plus de 32 millions jël na ko def ko ci dalal jàmm euh, ci ay matériel ak yeneen ambulance yi nga xamante ni président Lat Diop jël na ko dugal ko fii ci euh, ci ci département de Guédiawaye ak nag lu mujj li nga xamante ni tey def na ko muy plus de 280 millions mu jël ko def ko financement boo xam ni euh, pour les handicapés ak euh, femmes yi ak jeunes yi kon nag jàpp naa ni euh, Lat Diop bu ay ndomb tànkam gënoon a kawe gënoon a yokku itam jàpp naa ni Sénégal gépp dinañ ci gis seen bopp macha allah. pendant ce temps yéen relation ngeen am ak ki nga xam ni moom moo di premier magistrat. de la ville de Guédiawaye mu di Aliou parce que buñ la déggee ngay wax loolu dafa mel ni yéen Aliou Sall dafa dagg couper les ponts entre yéen ak moom. Euh, non cest à xam nga euh, monsieur le maire Aliou Sall man ku ne xam na ne man sama xarit la. Mhm. ku ne xam na ni itam euh, ku ma jox cër la ku ma respecté la puisque nag ay la waay yéwén lu waay soxor soxor soxor xam na ne Aliou Sall bi muy ñëw mairie ville de Guédiawaye fi mu ko fekk ak fi mu ko yóbbu tey donte sax jubóo ak Aliou wala bokk ak moom parti loolu da war a rafetlu. ndax nag li mu def géejaway ah beneen maire bu fi nekkoon nit mënu ko te it bu fi buñ ko fi jële woon tey beneen maire bu ñu fi teg li Aliou Sall man def ci ville de Guédiawaye benn maire mënu ko benn nit mënu ko kon nag kooku dama jàpp ni euh, dañ ko war a encourager aussi euh, donte sax euh, politique bi maanaam àndatuñu àndatuñu woon ay jamono parce que ay jamono ku ne xamoon ne digganteem ak lat ni mu demee woon waaye loolu ak politique ñoo ànd politique sa xaritu tey day nekk sa noonu démb sa noonu démb aussi moom mooy nekkaat sa xaritu tey mais du tee aussi ñun ci diggante boobu euh, daanaka duñ ci wax lu bon duñ ci wax lu ñaaw bu ñu sañoon ànd bi du yem sax ci diggante Lat Diop ak Aliou mais dafay maasale mbooleem responsable yi nga xam ñu ngi nekk ci yëpp ñu ànd ñu nekk benn puisque loolu mooy tax combat bu song ñu mën koo daal waaw combat boo leen song mën nga doon daan a difficile xoolee de l' autre côté ngi gis bee di sëy mi ngi proclamé wu mhm. mhm. ci kaw mhm. ñi ngi gis ki nga xam ne moom moo di Bougazelli jug aussi tamit samp nëndëm ça veut xam rek mi ngi dem ça veut dire bi tey nekkul benn ci benn instance bu toog lan moo waral mu am cli bii ñii nekk seen biir maanaam xëccoo bi nekk seen biir lan la c'est quoi waaw c'est ça politique moom ak xëccoo ñoo ànd politique moom ku ko xam-xam ni politique ak xëccoo ñu ànd. mais li ma ci mën xam rek. mooy muy monsieur le maire Baydi Sèye muy honorable député Seydina Fall. Euh, kenn ku ci nekk jàpp naa ne tey ñoom waruñu woon doon ñoo xam ne dañuy indi coow ci pour terrain politique bi. parce que kenn ku ci nekk aussi ñàkkul ni. donte ñaari fan la am na ndomba tànk boo xamante ni tey euh, parti bi jox na la ko. coalition Benno Bokk Yaakaar jox na la ko. kon nag su fekkente ni aussi dañ la jox benn benn ndomba tànk. maanaam nga yor ko diiran mandat mandat ba jeex ñu koy puus di ko puus di ko puus ba presque daanaka mu ngi bëgg a dugg ci ñaari mandat mais bu demee ba nga jàpp ni aussi intérêt parti bi mooy que kat ñu taxawal beneen candidat man dama jàpp ne loolu kenn ku nekk da nga ci war a ànd da ko war a rafetlu mais aussi doo fi nekk euh, def fi mandat ak xaaj ñu dem ba jàpp ni kat am na yeneen jeunes yoo xam ne aussi war nañ leen gemb pour que ñu dugg ci terrain bi euh, nga continuer ba di xëccu daal vraiment man jàpp naa ni loolu aussi itam nekkul lu gën ndax nag ku ci nekk am nga mandat maire mais aussi am nga leneen loo xamante ni aussi mu nga si ginnaaw jàpp naa ne nag loolu itam war nañu fexe ba ñi nga xam te dañoo nekk ay directeur nekk mais maire nekk leneen nañ jàpp ni am na seen yeneen morom yoo xam ne am na lu ñu fi bëgg a doon su ko defee nag ñu fexe ba cumul de mandat yooyu ñu xaw ko wàññi tuuti d' accord ñu daal di dugg rek si suñu dernière question ci dañuy daan leen ndax nee nga cumul mandat bi ak jéem a bëgg a nekkaat maire bëgg a daa mel ni ci buñ jàngatee jamono ji li nga xam ne moom le président de la république di def moo di mi ngi ci tànk bu wutu ñettee mandat parce que li ñuy gën a gis mooy di fu mu dem ñu xëpp fa xaalis mm-hmm. daa mel ni dañuy jéem a conquérir campagne électorale la nekk waaw man li ma xam mooy sénégalais yi daal dofuñu liberté gis nañu nguuru Senghor mm-hmm. gis nañu nguuru Abdou Diouf mm-hmm. gis nañu nguuru Ablaye Euh, ñi coow nag ñoom dañuy coow rek mhm. ñi ne ci rajo ak télé yi daanaka boo dee xool motuñu téeméeri nit mhm. même groupe bi même équipe bi ñoom ñooy dem fu nekk di wax troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat mais liberté wër mooy Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi toog seen biir kër mhm. nga xam ni dund nañu téeméeri at mosuñu am courant mosuñu am ndox tey ñu am courant am ndox ak Sénégal yi nga xam tey ñu ngi toog bu ñu feebaroon pour que ñu faju problème la ñu indil ay hôpital dernière génération def ko seen i dëkk jàpp naa ne ñooñu ñooñu moom bu wax ma waxu waxu mandat jotoon wala waxu élection jotoon ñooñu li ñu war a wax ñoom danañ ko wax comme ni ko président Lat Diop waxee euh, président Macky Sall wax la mu war a wax euh, justice bi wax li mu war a wax boo ko defee électeurs yi ñoom danañ xam lan la ñu war a wax ci loolu moom man jàpp naa ni ñun euh, képp kuñ fi tegit da nga naan damay liggéey réew mi rek comme dangay liggéey réew mi te am na ku fi liggéey réew mi loo xam ni vraiment gis nañu téeméeri at yi fi jaar amul benn président bu ko def man jàpp naa ne aussi kooku bu ñu ko gungee bu dee Sénégal la ñu bëgg du seen poos jàpp naa ne Sénégal dina yegg fi mu war lépp loo xam ne aussi dëng na ci kàddu yi vraiment ñu ngi ciy jégg lu baax a baax euh, di ñaanal yàlla Sénégal yàlla na yàlla def muy réewu naataange yàlla defal ñu ci jàmm ubbi àdduna bi yëpp def ci jàmm te yàlla moo am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm di sant nag mboolem responsable yi nga xam ne tey ñu ngi ci commune Wakhinane Nimzatt muy guddi muy bëccëg ñu nekk sur le terrain di daw ngir fexe changé li nga xamante ni moom moo nekk fii kon ñooñu itam vraiment amel nañ leen njukkal ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla itam euh, liste électorale yi nga xamante ni mu ngi war a ubbi euh, nañu fexe ba date bi nit ñi teel ko xam ndax itam primo votant yi bëri nañu euh, recensé nañ ci lu bëree baree baree bari bëgg nañu aussi maanaam ñu wax kañ la war a ubbi que la 15 la ñu waxoon finalement le 15 bi aussi dafa mel ni dañ ko dañ ko renvoyé bu ko defee itam ñu mu doon loo xam dañ koy annoncé ba ñëpp xam ko su ko defee ñu war a bindu ci liste yëpp mën a dem bindu ji bu élection jotee ñëpp mën a dem voté ji ci jàmm ak salaam kenn ku nekk delluwaat këram macha allah ñu yàlla jox ndam ñu xam ne ñoo ko am ñi nga xamante ni aussi euh, yàlla joxu leen ndam ñu xam ni yàlla mosoon na leen jox ñoom it ñu daal di dellu muñ rek toppaat ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. merci